alaikum wa rahmatullah mbok Sénégal mbok diaspora euh, mbok internet El elvision Media. ñu leen di soññaat rek ngeen abonné suñu chaîne elvision media Média te ngeen dem ci suñu site internet www.elvisionmedia.com point elvision média com ngeen abonné euh, ngeen téléchargé ko lepp luy information lepp luy lu leen neex rek fay gis. tey nag ñu ñëwaat suñu quatrième numéro ci suñu émission làmbi électoral bi nga xamante ni mën na ni moo xew parce que ñu ngi jëm ci làmb ju mag organisé par ah suñu CNG de la République seen tête de ñoom CNG de la République bi nga xam dañoo am seen mbër moom mooy roi des arènes ñu naan ko yi tey nag ñu bëgg a taxaw seetlu tuuti ci beneen mbër boo xamante ne nii dafa bokk ci juróom ñi nga xamante ni ñoom la CNG de la lutte euh, CNG électoral bi tànn muy ñu tuddee ko Siteu mën nañ leen a wax directement ki mu doon mooy Ousmane pour quoi ñu taxaw ci moom seetlu parce que jamono yi ñu toll nii bu ñu waxantee dëgg rek ci opposition bi moom moo ci nekk favori maanaam tey bu yi doon dem final jàpp na ni moom moo koy yóbbu final mais dañuy laaj moom Siteu moom Ousmane Sonko moom ak ay militant ndax li ñu daloon ci Jimbori ci yaakaar ak ci foog est-ce que duñu dalaat ci moom est-ce que Sénégal duñu yàkkamtiwaat rek ni nañu fal président fal koo xamante ne nii ah bu téyee couronne roi des arènes bi du xam sax nan la koy utiliser est-ce que xam-xam bi mu ngi fa est-ce que mën-mën bi mu ngi fa est-ce que expérience bi mu ngi fa mais tamit ci beneen côté xëy na bu yàlla defoon tey moom mu falu moom Siteu yor roi des arènes bi sénégalais yi ñun amateurs yi dina ñam beneen fruit mooy beneen fruit bu bokkul ak politiciens yi ndax mom ken jàppewu ko trop un vrai politicien ndax fi mu génnee la ak ah, fi mu génnee nak sénégalais fofu la mënee manam Jimbori mi nga xamante mo yor doore ji du des arènes fekk nako ah mu yor place am di liggéey di révéler ay information yo xamante amana deug la tax ñu ni ko yow fii dootoo fi xey dàq ko mu ñak salaire am waaye gëm bopam ak jéem créer mbolo bopam di wax sénégalais lo xamanteni ni mën nañ ko dégg ba yalla def tay mu nga bir assemblée mom ak partem amna expérience yor rew waaw wala déet dañ leen koy laaj ci seeni commentaire ndax war nañu gëm rek ni mom la parce que mo fi seus tax ñu fal ko ndax buñu naré fal roi des arènes ki fi seus rek est-ce que du tax du jar nga bàyyi fi ki nga xamante ni am na lu mu commencé te bëgg koo yeggale damay laaj kese ndax bu ñu jëlee suñu couronne roi des arènes teg ko ci loxo koo xamante ne nii amagul expérience dina xam nu mu koy téye est-ce que du xeexe dooley roi des arènes boobu comme Jimbori parce que neexul ba neexul nag xëy na bu fekkonte ni ni tey le premier cas di Balla Gaye bokk na ci làmb ci le deuxième cas di Modou bokk na ci làmb ji ak xëy na ñeneen ku mel ni ga gàkku wala ñeneen ak ñeneen yaakaar naa ne làmb ji doon na gën a neex ñu bañ a fàtte tamit kenn koo xamante ne nii ancien roi des arènes moom moo nekkoon tëdd filam ñu naan ko Idi di ndaamal Kajoor moom Thiès yàgg sëgg bëre ba ancien roi des arènes 2017 2007 moom moo ko yóbbu woon final waaye tey ñu ngi taxaw seetlu ci ki nga xamante ne nii mooy Ousmane Sonko ndax waruñu koo wax rek mu def ndànk ndax gis na nag bu fekkonte ni tamit euh, roi des arènes bi fi nekk ragalu ko liñ koy jiiñ yëpp kenn du ko ko jiiñ waaye yàlla dafa def lépp luñ koy jiiñ rek moom am na leneen lu mu fay teg dem nañ ba enregistré ko ci waxtaan bu mu séq ak famille bi nga la wax ni ñom lañu jël quatre milliards té di mais lan qui tax mom mu am fit chaque jour jàkkaarloog sénégalais ni len société nangam wala ministère nangam wala assemblée nangam fay ñu impôt yorel nañu sénégalais nañu sénégalais chiffres ba léegi nii kenn mënu koo jàpp ni ko ràpp ci kaso bi tëj ndax bu fekkonte ni tey xëy na li muy wax du dëgg wala mënal nañu ko dara moom ak Modou Xarañ Lo mais nekk ci ndumbu siin ñoom ñaar ñooy bokk fu ñu yeewoo bi ci mujj bërki Dembo Njaay mu taxaw ni diw ak diw ak diw ba interprété euh, procureur ni bu ko neexee na ko woo nañu jàpp diw ak diw lekk nañu quatorze 94 milliards lolou du xaalis bu ndaw de waaye ba legui ni ken waxatu ci waaye nak damay delu ci war rek di len wax ni ñun ñi nga xamanteni ñoy amateur yi len rek lañu am moy suñu carte nañu ko jëli ñëw tok suñu kër bu suñu mbeur bokkee te ñu bëgg ko voteel ñu dem sànnil ko suñu carte bu suñu mbeur bokul te mënuñu ko jox kenen ñu tok suñu kër te baña sanni bañ a yuuxoo bañ a toj ay kaar parce que lépp loo xamante ne nii mu ngi daw muy kaar muy bien public ñun sénégalais yi suñuy impôt suñu xaalis lañ ko jëndee bu ñu ko yàqee ñun ñooy perte ndax milliards yi ñuy séddoo ñun duñ ci jot xëy na sax ay 2000 francs wala ay t-shirt wala ay Lagos ay vax lañuy jox suñu jigéen ñi ak xale yi dëkk ci ñun baadoole yi

politicien rek moy nek politicien 2 ans yor ben fonction nga dégg ñu ne amna na kër Paris appartement Paris tabax na kër Almadi yor na 4 4 bo xamante ni ay 100 milliards lay cent millions lay jar kon ñun sénégalais ñun ñi nga xamante ñoy amateur ñun ñi nga xamante ñoy suñu yor di xol ñun ñi nga xamante bu dëkk bi metté ci ñun lay feeñ parce que ñun xam nañ saako ceeb lu muy jar xam bino dëwliñ lu muy jar xam suukar lu muy jar ñun ñooñu nañu tey bu ñu dara dugal ci pëccëxoo bu ñu dara dugal ci sànnim xeer bu ñu dara dugal ci taxaw sax di wax lu ñaaw boo gisee ñu doon def taxaw seetlu ci moom Ousmane Sonko parce que yàlla dafa dogal guddi yu ñu toll nii ñi war a sëgg ni dañuy bëree le 24 ak Jimbori ah moom moo ci xaw a tolloog moom doole ci côté mbooloo

information bu ngeen bëgg di ngeen ko fa fekk émission yi day continuer fi dalal ay ndaw politiciens ñu waxtaan ak ci respect waxtaan ak ñoom ci xam-xam ñu xamal ñu xamal sénégalais yi loo xamante ni xëy na suñu loxo le 24 ñu xam fan la suñu carte ndax dara